abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor aju ci réew mi ak ci bitim lan bikum Barthélemy Dias fa soqi fetalu kàddu di ko tiire ci kaw Ousmane Sonko ak waa Pastef yi info yéen a ñu ko xamal démb fa doon xamal janook taskatu xibaar yi waaye xamul lu mu yàkkut moom maire bu ndakaaru waa yeewi askan wi rawatina Sonko ñam xàndal yaw fa ngay xool xam ne waaye yeewi askan wi fa ñoo wax ne fañ koo dàq Khalifa Sall ak Bart maanaam waa taxawu ya fale na tontu na leen faa leen di laaj fan ngeen mës a gis koo xam ne fa ngaa ñëw luyee ci kër xëy na fa ngay dàq borom kër ga du ngeen bàyyi seen waxu caaxaan-caaxaan yooyu fa ngeen ñoo bëgg a jaboliser sonkong ca kaso ga su ko defee yéen ñooñu di wax pour gars yi woteel leen ba tax le quotidien yéen a ne mortal combat moo xam diggante yeewu fi mu toll ne ak taxaw Barthélemy Diaz ne man faay taxaw wax lu leer naññi gis ngeen waa Pastef yi ñoom ay traître lañ workat yu mag yow seetal fañ doon wax ne xalifa Sall fa war a bokk ci wote yi léegi ñu dem assemblée nationale di wote ngir xalifa bokk ñoom ñu bañ na duñ wote te ñoom waa Pastef yi fa tànnoon gat sa gat sa gis nga tey loolu fan la mujjël seen waaji ca kaso ga ñun nag dialogue lañ tànn waxtaan te lii Sonko di dund defoon nañu ko fi waaye fañ ko dund ci dignité ak dal ba tax lees si ko yéen kaay ne ah yëf yaa ngi ñaaw de Bart mooy wax lii Sonko nee na waaw donte nag sama xol bi ba traître lañ warkat fa ñoo def lu na weng ñoog seen waa ba mu dugg kaso kon luñ ci góobee nañ ko gar buñ ñu ko sippi ñun suñ ñoo newu ci turbine yéen kaay mel ni ko daan ko ah ah d'accord ma ak yow Bart de gis nga suñu waxantee dëgg sa waa ji Khalifa fa jëfandikoo Ousmane Sonko utiliser ko ba pare wan ko ginnaaw ba mu nga nee ca kaso ga li mu doon ànd ak Sonko yëpp gëmut ci dara ci boppam rek la newoon moo tax fa ko war tey Barthélémy na yaaw fa ngay xool fa wax ne Abbas Fall ak ñam àndal fa ñoo def lu ne weng fañ leen a wax poste yii lañ leen di jox ñoom ñu gedd bëgguñ yooyu te faa bëgg mu xam moom Abbas Fall na ko maire bu Ndakaaru bii nekkut garderie d'enfant ba ma nekk fi di nax ay xale di leen jox ay tàngal ak bonbon déedéet man fañ maa dénk budget cinquante milliards ma war a liggéey Ndakaaru kon waxu caaxaan-caaxaan ay xeex xulo yi ñàkk fay di man nekkuma ci loolu faa bëgg oh, bi njiitiram Macky Sall na ko tasar ba xott dara dootu fa des lu mooy turu opposition te loolu xam na fi mu toll nii enquête yéen a kaay dëggal ko na ko yeew ak taxawu kay fi mu nii fa tasaaroo fa tàqali ko l'évidence yéen a kaay ne waaye Barthélemy Diaz démb conférence de presse bi fa wax ba pare waaye yeeyut kenn maanaam li wax doyut kenn ku ko dégg fa nga xam ne kii li muy wax xenwut maanaa ñoom daal fa war Sonko ak yeewi looluy dëgg leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Ousmane ba léegi bokk ci wate yi 2024 wàllu wax naan génn nañ ko ci liste électorale la daraa ca taxawut professeur Ngouda Mboup moo ko xamle ci indépendant yéen kaay maître Tall avocat Ousmane Sonko ci regard yéen kaay ne ñii fa ñuy théâtre Sonko fañ ko génn ci liste électorale yi faa leen di xamal leen na ba léegi Sonko éligible na mën naa bokk ci wote yi te fay bokk nag mooy nekk suñ candidat ma ngi ko waxee ci indépendant yéen kaay l'observateur na leen hé affaire bi du yomb de ndax yéen waa Pastef yi fekkee recours jëfandikoo nguur jaay doole la recours boobu du jàll réew mi yéen kaay ne Sonko fi mu toll nii bu doon boxe la ñu ne sukk naa moom maanaam ci daanu la jëm ah. yow fa ngay xool Sonko fañ ko jàpp tëj kaso partem ba fañ koo tas ay jege ñaalam fi mu ni fañ leen di jàpp ci lu bëree bëri di tëj kaso ñuy far moom ci politique seen parti ba ba tax yéen a kaay bi na foog ngeen ne lii moom Sonko dana ci génnam docteur Babacar Niang bu suma assistance moom fay artu ne Ousmane Sonko grève de la ba mu nekkee yàgg lool lu ko ca dal lu ji njàgg état bi mooy njàgg man ko waxee ca yor yor yéen kaay libération na koo lim grève de la faim ba fa métti ba fi mu toll ni fañ ko rawale hôpital principal bu ndakaaru source a yéen a ne ambassade bu Sénégal ca Suisse fañ koo rajaxe woon seen bureau ya ci ñaxtu yi xamoon fa nii léegi nag takk dere ñu ngay wër ña ko def ngir jàpp leen keneen ku ñu jàpp muy avocat bi ñuy wax maître El Hadji Mamadou Ndiaye mooy maire bu Thiaroye sur Mer ba tey ci farandooru xalifa Sall yi la bokk taxaw Sénégal libération nag xam nga lu tax ñu jàpp koom nee nañ fa bokk ci mbiru tappale xaalis bu toll ci ñetti milliards ay si du quotidien ne farandooram boobu di ak Karim ñoo xam ne fa wax ne donte wotal nañ leen assemblée nationale coppite ga terewul fi mu toll ni alamaan boobu muy xaalis bañ leen daanoon buñ ko fayut duñ bokk ci wote yi waaye xam na ñeneen seen xam-xam màcc ci wàllu yi ñoom fa wax ne déedéet comme wote nañ assemblée rek terewul ñoom fa ñuy bokk leer laneen lu leer ba yegg ca nàññi ja mooy ne réewu CEDEAO yi noppi nañ ngir yebal ay soldaar ñu xeex ji ca réewum Niger ngir nanguwaat nguur ga ca loxoy soldaar sa seen ndaje mañ doon amal fa leen jëlee dogal bi ni mel donte nag neneen fa ñuy waxtaan waaye dàquñ tamit guerre kaay moo ñu ko xamal le soleil yéen kaay na leen xée du yomb nag de njiit réew Macky Sall ne man d'accord naa ci ñu yóbbu fa ay soldaar ndax su fekkee ci ginnaaw fa ñoo defoon ay njuumte ñun waa CEDEAO fañ ko war a jubbanti ba beneen yoon kenn du foqarti nguur ma ngi ko waxee ca Vox Populi la mu wax moom Yaya Diallo député PS mooy fa dal ci kaw Alimane ñaawlu doxalinam <laughs> yaaw fa ngay xool Yaya Diallo fa wax na Ali fay manipuler te li muy doxalee nii doxalin bu salte la ñun waa PS Aminata moom lañ jox suñ kàddu te ña nga ca bennoo waaye nekk fii naan Amadou Baye candidat kii ak kaa PS dañoo war a am candidat la ab Ablaye Wilane wax ak lépp fa koo la ci le point yéene kaay yaram yaram championnat Arabie Saoudite tey lay tàmbali ci àjjuma ji àdduna bi yëpp na fañ leen di nar a bàyyi xel ndax ponkal ya fa nekk ñoom Chris ak Sadio ak Benzema ak ñoom seen sunu làmb yéene kaay na combat Gris ak le premier octobre lay xam libération moom xamal la xam ca diiwaanu tëngéej ay ndaw fañ doon dugg ci gaal gi ngir dem barsa mbaa barsa takk dere gis leen xaaye leen ñu bañ jàppante xam ba balu fetal so xam fa xam xale góor bu ñuy wax maaxi faal ngoom moom fa faa doxee faatu ñàkk bakkanam vox populi dëggal xibaar bi xam na ñuñ fa gaañ xam ñuñ fa teg loxo turbine yéene kaay na ko faa lay yokkal fanweeru doomu aadama faatu nañ ci géej gi ay sénégalais ci weer sulier wi ñu génn les secours yéene kaay moom fa ñoo xamal ne fa xam benn taximaan fa faatu ci biir otom ab moodu moodu la ma nga faatoo ca Amérique New York ca biir taxam ba laas yéene moom fa ñoo xamal dafa am benn soxna daal benn dëkkandóoram bu jigéen fa koo tuumaal wàllu njabara xarga fuufaak dëmm ak yeneen yi ni mel waaye ndaw sa xam nga nu mu def dëkkandóoram ba fa koo dóor ba dama baaraamam ba de léegi moom ndaw sa dóoree jàpp nañ ko tëj kaso hmm, waa ma ne xam nga ndaw si fañ koo tooñ waaye li tax ñu tëj ko kaso mooy fa fajal boppam dóor ba gaañee te yoon fay tere ku fajal boppam même bu ñu la tooñee sax fa nga yóbbu ki la tooñ ci yoon yoon fajal la abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te mi ak